كلب سولانا تقديم المقبول عن الفاعل لرغبتي Maodo ba mu ko séenee mu def mu ne sës mu def ci saasa xam naa ko booba booba nit ñi àggaguñu mag ñaa ngi jiitu waxambaane topp ci jeeg ji topp ci jànq ji topp ci gileem yaa ngi temp ndënd yaa ngi dal ndànk ndànk ndànk ñu naan sooy nañu mu dal yëg ci tax mi tàllal ñaari loxoom am lu mu kiriyee alaaji maa ngi xam naa na mu kiriyee la mu kiriyee ngi allahuma xaylan xayla ja فناداهم خائلا خائلا قتلاه جدكم خاموا إليه شراعا بسلائهم بيكوكو بلاسي ما على ما سلام إليه هاي يا بني خيلا Medina gépp ak bokk genn maam soxla suñu wax xayla sax moo fa sëñ Awa moom ñaari doom mu faatu doomi ndeyam takk ñele bokk bàyyi wéy ñii bokk bàyyi wéy ñii tudde xasri ji ñii tudde lëwsu yi soxna su baax a daal su dëkk ndakaaru benn waalo waalo ñëw takk ko am ci doom faatu yàllaate mu tinji ba noppi benn bawal bawal ñëw takk ko am ci doom soxna soo soo jur waalo waalo yu jur bawal bawal noonu la mi dina mel ak li jëfam ak laysu ñoo bokk mel na maam mu mu mu adressé nag seen maam naa ya bani xayla xad laa jëddakumu gan gi arrivé na seen naa ki ngeen doon ñu ne wël bit tarkay ñu wël bit naari góor yi ku ne yaa ngi say tànk gileem yaram fas yi jaab ñun ci daw xamoo départ ndoo nañu ilahi jëm ci ne bi bi salaayihi mi ànd ak jëysa yi ñuy yëkkatee gànnaay di ko wan raw nga ku la doon dàq wàññeeku loo joxoñ ñu damm ko ku la song ñu daan ko fii la gor yi nekk moo tax yàlla ne lil fuqaraa il muhaajiriina lazina axrujuu min diyaarihim wa amwaalihim يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصديقون نك اسم دينا نان واند وي ولا سنه تبو دار نيوم والايمان من قبلهم يحبون من عاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما اوتوا ويجدون على انفسهم ولو كان بهم قرابا ومن يقصوا نفسه فاولئك هم المفلحون جست نك ني سيدس ني ولا سنه جاو من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان wala tujal fi qulubina illan lilladina amanu lilladina amanu ngir nabiyun kaana xablal kawni nooran ku ci aju rek sa nga bokk kaana xablal kawni nooran heure yi nag ci heure yi yërmande yàlla yi wala ci la ne bi daan na wax ne dee a yeewu di jéem dogale na fa xatu raban ya maanaam wala ngaanu yërmande yi ndax ngeen daje ci moo tax muy forcé ku noppit ñaan ndax ñu am fu mu dugg fii nu ne ba ba bi fenkee lu waay ñaan yàlla mu defal la ko ak xaal bu mu la mën a fekkee sun borom dina dina wax dina wax di waxaat arab di ko wax takraaru yéen ngeen di ko wax répété li ko dale fii ba jant day wax naan xanaa kuy ñaan amu fi dama may ko kuy baalu newu fi ba ma ba ma faj ko loolu lay ba jant fenk mu arrêté wax boobu ba nëgër ni ëllëgati mu delluwaat al min mustaxfirin foo ko firilo kuy baalu amu fi al min saidin uxtiya kuy laaj amu fi ma jox ko gaaw borom aaja amu fi ma faj loolu lay li ko dale fii fajar xaar ba jant cinq bokkul ci àddina ci àjjana la bokk ñu rocci ko rof ko fii xam nga lu am àddina guddi ak bëccëg rekk fi am xam nga lu guddi di mel day lëndëm xam nga la bëccëg di mel day tàng fajar ji fi muy xare nag ba fenk du tàng du lëndëm kon bokku ci déggu la li ma wax sax de poir boobu heure bi am ba borom day répété loolu ndax du yërmande yi walangaan léegi ka yëpp ci bokkul dañ ko roccee ci àjjana indi ko fi ma ne àddina ñaari ñaari ñaari jamono fi am guddi bëccëg guddi day lëndëm bëccëg day tàng su jant bi fenke nag su fajar di xare bëccëg du leer day tàng samsu ak xamar guddi day lëndëm bëccëg day tàng fi jant bi fi jant bi euh, fi fajar ji xare nag ba jant fenk jërëjëf doom nee nañu du lëndëm du tàng kon la ci suur ci ne nelaw indi ko fi ndax àjjana laa yaroon na fiha zamzam wala sam xarira ajana amul amul amul amul lëndëm ndax lëndëm a nga safara xam nga guddi yéefar la guddi yéefar la jësu la tuub guddi bëccëg jullit la ba laaxiraa bëccëg day ànd jullit yi dem ajana guddi ànd ak yéefar yi dem safara moo tax safara lëndëm lool ajana leer lool xam ngeen ne sax xam ngeen ne sax guddi guddi sax xam ngeen ne kuñ ko waxul dara nga yaakaar ne du jullit parce que melon bi du melow jullit ni mu ñuule ni mu mën a maye moyen saay-saay ni mu mën a tasee jotaay bu ñu toogoon ni mu mën a ragalloo nit fu mu ñemeñoon boobu jikko du jikkoy jullit seen ni bëccëg lay rekkaar ak ni mu rafete ak ni muy tàppoo ñu soree woon ak ni mu lay may fiti foo waroon a moo tax ñu ne ju jullit la guddi yéefar la ba laaxiraa ba ñu jugé ba cëg day ànd ak jullit yi dem àjjana moo tax muy leer naññ te duñu taal duñu taal làmp ci ànd ak yéefar yi dem safara muy ñuul di ñuul di ñuul rek di ñuul di ñuul ngeen góorgóorlu fu fi waay faraanoon aw loo fa fanaane woon lu mu doon heure bi jib jib yàlla may la nga sawar a jóg tàllal koy loxoom du ko delloo kon ku fanaan ci rasulullahi fanaan ci tànt ba waxtu wi jot du mas wax farata la ci doom ju ne bu mësuuri xam la yaayam dak moom gis nga yaay moo ëpp àq bàyyi ci doom fi mu ne doon julli julli naafi la sa xam xamul ne da ngay julli mu oola yoon na foog wuyu wala sa papa ooye fekk ngay naafi la yëgul nag ne da julli mu diw nee ko naam wala laa lii na naam allahu akbar waaye bu yégee nag ne da julli yoon na ne àggalil doo sëlmal sa yaay bu la ooyee te yëgul ne da julli da wuyu su yëgee ne da ngay jullit tey oole da ngay wuyu bopp doole bu sa doo sa papa ñaanal sa yaay di la ñaanal sa ñaani yaay yi jëkk nangu loolu la tër yëpp parce que moo ëpp yërmande ci ci doom moo ëppit coono moo tax yàlla gën a déglu baatam boo julli julli farata sa papp jur moo laa wuyu bu teyee oola doo wuyu boo julli julli farata sa yaay juum oola da wuyu su teyee nag doo wuyu maa ngeen di jaxase yu jaxasoo te te te xam ko dafa war du yàqu te sa julli du yàqu waaw boo président te sa julli du yàqu sooy naafila laa wax te papa yëgu ne da ngay mu ne diw yoon ne na nga wuyu soo yëgee nag ne da ngay naafila mu ne diw bu wuyu tan xam lu sa yaay bu yëgee ne da ngay naafiloo su yëgul ne da naafiloo mu oola wuyul su ko yëgee it wuyul naafila da gaa gën dem ci farata farata sa papa bu juumee oola bul wuyu bu teyee oola bul wuyu sa yaay bu juumee oola sa muy farata wuyul bu teyee lu ci waay ñaan yàlla mu nangu sur borooma ko wax te jaam du deñ di am soxla ci boroomam maadaama xayyan feeg yaa ngi dund munu laa jekk-jekk ba amuloon soxla soo defe mukk munu laa ñàng sëriñ ba amuloo tiit moo defe jaam bi fu mu toll mu ngi dukk taale lu mu dëkk mën lu mu xamul na muy mujje war lu mu xelam lu mu xamul na mu koy amee kon njàccaar loolu di maam yàlla di musal ku mucc ku mu doon di faj aajoy ku mu doon nabi gën koo intéressé ci li mu bind nabi ñor leen ba ngeen def jëf ji te anaa yàlla nabi rek ko ñor nabi rek ko ñor keneen ko ko ñoraat nabi ñor laa tax nga ñoraat ñu ngi fanaane ndeysaan sanga bu baax boobu bu guddi gi yàlla nga koy nangu mu jeex nii ñu nar a wax ak moom arwaa rasulillahi ba déwénati sunu mandaay soxla yi nañ ko dugalaale ci courrier bi balaa départ suñu borom fajal na ko nawet baa ngi ñuy jublu li mbindeef yi mën def nañ ko seen wàll wàll ma ci def ndax ko yokk bëri boo xaas te asamaan tawagul man de nee naa gouvernement bi di ngeen xam ne yàlla leen gën a baax yéen ñi gaaw a gaaw xaat yokk bërigo bi te bërigo te bërigo te te asamaan si tawagul li ngeen am ngeen yokk kon nag ndox nekk ko moom it di ngeen xam ne doon leen ko gore dina ko yokk leen de incha allah nawet bu neex yàlla ñu ko yàlla jox te barkeel géej gi mu def ci ndawal lu doy te it ñoom ñaar ñu bokk am prix li ci nekkit lewet dom gouvernement bu bees bii amagul at ki a toll ci xaajal attaque yu demee noonu yàlla ci yàlla beesalaale sunu lépp sunu liimaan sunu lislaam sunu aqiqa sunu tariqa ak nag sunu wërsëg dolli lu yërmande ji ñu mën a yërëme sunu njaboot te def ci i nopp dégg gu ñu déggal may nu wërsëg wu ñu leen yore bi jaayi rasulillahi rajo Dakar ñu ngi leen di gërëm di gërëm seen chef service tabaarakalla wax yi léeg-léeg nit bànneexu ci fu sori te yéen a tax may dem di dem di dem ba fan fan ci mujj fi doon jànge kër yaa xam benn waaye ne alaaji bu mii ngeen ñu indil day nit bëgg na ba tàyyi ci rajo bi ci moom tam fa la ko gis e tasaare boobu ngeen di tasaare xabaar yi ba ko sori di ci dégg si alaaji xalifa bu baax bi Abdal Aziz di ko dëkkee waxtu suur yàlla jëkk na ko gis na ko yàlla yàlla yàlla yokk seen déggoog seeni borom kër yokk seen fan yokk seen wér yokk seen i soxla di jaay rasulilah. والأنبياء وكل خلق سواه ورد عليه فتواكا نفق سلاو بسبيلك مخلنا وتبقى تبقينا يا وسيب جاءت والقفا لتغتك بك تستجير وتهتمي بهماك بك تستجير وتهتمي بهماك بك تستجير وتهتمي بهماك تستجير وتستميل بإماك بك تستجير وتستميل بما لدي بك تستجير وتستميل بما بك تستجير وتستميل بما بك تستجير وتستميل بما تستجيل وتسمي بما بك تستجيل وتسمي بما بك تستجيل وتسمي بما بك تستجيل وتسمي بما بك تستجيل وتسمي بما إجابتي آمين تفضيلا من جيجاك فوجي آمين أبرك لكينا أبم جيجاك من دبرای کتل را یا تبخال لا یار الله دبرای کی نت چگنیولا من ما من دمین لو من اما علاج آلنا تنقل مما خلمم سمقر داده والنيرا من الله مكة ميلة دي لا تبلعي كادت فينا أبجلتها ولي تين سمسامة مملي ميتا أنا يا دار الأزرق لا فضل ماد ما قامه جبريل من نجري لا أبراها دون جمسي أنا جاء jëlinante man ko yàlla de ci ji yoona ci ga nasaraan yéegal loola man waral ca kaaba ga yow daju ñuul wuul kon yenn ba ne loolu loo xool yàlla na dina may la ak njëggal jooju wax doy na الأكوان من هذا المقام لي إبراهيم جلي فانا كان ضلي لو يوم ضلت الأكوان من نانا لجيزم سميو تدم باغن على جآل مرة بلا دبل فيرات بالمال من كل مال ومكة يوم خدر واني سقيانا من ديمال تاخويا وعرفات الدم فاناني كمسؤول الله ترفع رجلي مقفولا من تسوخي الدم من غسل جمر جمال مكة أمر الله مهمالا من ولد جل تبادا جد جلاد ما نفالا أيبو دي سن للجمرة تكمينا من الحمد لله سنسلي الله لا إله إلا فيما تبا am tey julli ci mbooloo man gi jàkk soo ci amee ab rakk قليلا man fi ñëw fi jar naa ci nun mani am adduna mi ci biiram dal di koy joxe ala am da maxbala man fi ñëw fi jar naa ci nun kay def sar bi deefila wane jar bi jaar ay bi dig fi jar beegu toolo man fi ñëw fi jar naa ci nun may di def ba am jalula waay nga def ko am yóbbal la ay da maxbala أقبالا من يمن بانينا سؤال يبلي وجبالا لبيك يا لاليلا لبيك شيلا من ساقم دانا بقى أم يقبل واجب اللي يجيب الفودة ما كلم يلواني قيوالا من ما نسكاتا إليه ليلة ريبا واجب bala def méngel bi sax ci sa kër yow te ngay wut. sal sa jabar sa demoon naa kon jëf jabar keeloo. may bul saaxal ci sa kër benn waxtu ci. naa def ñuy di xaaraam ñi wam wam ñi di wandeeloo. may moytu riba ci àll riba daal bal ma may tuul ñaanal ko kon nga nërmeela mu ne jooxal moo taw bi fu yow aslam lool moo maana yaa boo ngi ni fawtaare isaas la admila mu ne xamal ni yow yaa di toolam moo ni tam ndaa tollu bay baala may ab tool su nangoo dañuy bay am ñaaxam ba waaw su gan sonde ñu fi ñaaxam ma def tiila ma ni joxal moo sawi bu yow aslaf jox moo sawi ay waay sax ba miskin yaa alam ñëw teebul jeelo ma ni royal ci waa xaramay ni ay waaxee ay xali jaar royal royal mu yaa ngay xaar ci ñoom jàng alquran yu a tatam dangay jàng saydun wa tartiba man fannul ci dem jàkk yow ab jumaa alaajaani day sarax gumba miskin yaa lay xool man sa aj gi nag boo moo tax kan ngay yab si waaju ay waaju moo demee ولا دنا والأمر مجهول وانت أجدي نخدم وتنجي دخدي بنكولا يا تنتو بنكوكا يا انت ما مغول وهنا غي ويخلق يوتاب البي وتتت أيوة يطيوا أنجولنا جرنا جيبن جولا ما نوتين يوحاكم لو يو أموتا بغارك أيوة يطيوا لا يواجه ما من بندم إليه am ngeen silfatul maani yaa saabul xaalidaatu basawaata diwaani yëpp naa na ko loolo xam ngeen silfatul maani yàlla moo tuuba léegi ngeen niiroo man xamal ni waxtu defe yaa baba moo la doon waalu te saa ñoom ñëpp a wax loolo قد بلغنا معنى وآل وبالله يتبخنا لصينا يلا دل سلامات اليوم الميكي توقي مصطفى أن يقري أن يقري وينا يلا دل سلامات مصطفى أن يقري أن يقري waajal ci Mustafa am ñaa koy am ñaa koy woo yow am jaamoo maa gana tey doo fa ci Medina maa gana laay ab guddi ga ci Medina gana leen ci lépp luy leen Medina gën a tey suuf sa ja Medina moo gën a laal guddi ga ja Medina gën a laal kii la foole la ay jaw wa mi ja tey moo gën a tey suuf sa ci Medina moo gën a laal guddi ga ja Medina gën a laal kii la foole la doom jooja moo gën a tey léegi suuf sa ca Medina moo gën a laaja guddi ga ca Medina gën a leer di la kooloy leer ay ay ci Medina tu ak lampam yaa mel ni ci weer leeraat xel ma ci aan cooroor yaa mooy leer Yerusalem hajantu jalla moy Medinatu daaral ijraate nabawi fi daaraade na saxoon xalman yi ñoore fi moy Medinatu dëgg la fi la diine nekk di mbarmani fi sax la toore Samba Kajoor